nuyu. maa ngi leen di fay euh, tey ñu projeté premier épisode bu série Vautour nan ko gisee. kontaan rek si euh, ni nit yi ñëwee partagé ko ak e et euh, aussi di gis résultat liggéey bi ñu jot a def. Mhm. si série bi nga bokk bokk nga si série bi. waaw d'accord nga ci joué. rôle Sonar Sow. Sonacos lan la dafay pànk dafay dóoraate dafay calme bon détail yi du ma ko jot joxe du <laughs> doon ko leen spoiler bàyyi leen rek ba série bi génn ngeen découvrir ko mais ci Idoles gis nañ le rôle bi ñu ci joué nañ yaa kii xaw nga metti tuuti nag ci saison yi mais bii bu euh, ñu gis daal rôle bi nga joué ñi ñi apprécié ko déjà. waaw bon on va dire que on a essayé de changer de registre rek. Mhm. jóge ci idole am benn façon bu ñu doon joué. indi vos tours euh, changé indi leneen quoi génn ci génn ci gaam bi ñu nit ci xamee. mais i dool ban satisfaction nga si am ban retour nga ci am yu la neex. baa ni ko nit yi bëggalee seen bopp rek. et puis voilà quoi loolu la principalement ni ko gars yi adopté def ko seen yëfu bopp. Euh, jàpp ne sax mooy meilleur production sénégalaise donc loolu fierté la ko si. d'accord mais tamit xaw nañu sànni xeet des fois ci idole. dangaa metti Penda daa metti. <laughs> du si ñàkk est-ce que naturellement loolu am nga point commun ak Dieynaba ak euh, Penda. bon je ne sais pas loolu moom ñi ma xam ñoo ko mën a wax man mënu ma wax si sama bopp mais tout ce que je peux dire c'est que sànni xeet mënul ñàkk nit kuy nekk acteur di nga xaar forcément ay critiques yu ñëw. Mhm. loolu moom mais am na ñu bëri dañ la <laughs> am na ñoo xam ne bu ñuy diriger RH nga si woon non yu bëri dañuy xaw a métti naa dañuy def comme Penda est-ce que noonu la ñu war a yoxe je sais parce que jànguma ressources humaines mm-hmm. mais bon bu fekk xëy na bu dee noonu lañ doxale xëy na loi wala seen responsabilité permettre na leen ko je ne mm-hmm. mais daal vautour mën nañ la ci rôle boo xam ne ñi ñi dañ ko apprécier waaw vautour vraiment ça n'a rien à voir ak euh, li ma doon joué ci idole c'est c'est un registre totalement différent donc na ko gars yi xaar. captiver daal gars yi incha allah. merci beaucoup merci à vous.